alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi gannaaw ba ñu sante sunu boroom mi ay jaamam war a sax di ko sant ci xéewal yi nga xam ne mënuñu koo fekk ñi ngi koy ñaan mu julli sunu yenente ba sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay sahabaam ak ña koy roy ba ila yawmi din gannaaw loolu ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla sunu fàttali konte ak yéen tey mi ngi jëm ci yan yoon lañu mën a jaar ba bàyyi lépp loo xam ni amuluñu njëriñ ca mooy li ñuy tudde allahu lépp loo xam ni amul njëriñ ci yow ngallaway xamal ne pertement la ci yow ngallaway wu julit na ngeen ittewoo ci loo xam ni seen njëriñ ma nga ca seen njëriñ ñi mbokk jullit ma nga ca jullit day moytu lépp loo xam ni su ko defee walla mu wax ko dana ca loru walla dana ca lor mbokk jullitam waaye naka noonu it la jullit di moytoo bépp jëf boo xam ni gisu ca benn njëriñ bokk na ci loo xam ni boroom xam-xam yi wuute nañ ci ndax wax la bi yegg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala wax la bu yem ci sëtam ba xasan ala kulli xaal wax ju màgg ju dëggu mooy lañu wax ne bokk na li rafetal diine nit ki mooy mu bàyyi lépp loo xam ne nekkul waru garam ay lépp lu ko amulul njariñ sa diine du mën a mat lu dul da ngay yëg ne lépp lu jublu di ko wax wala di ko jëf da ngay yëg ne lii kat amal na ma njëriñ tey wala ëllëg loolu di benn ponk bu màgg ci ponk lislaam di benn yoon bu rëy boo xam ne jullit ñi ca lañu war a teg seenug dund ca mooy ittewoo la nga xam ne mooy seen warugar bàyyi ca sori lépp loo xam ne amalu leen njëriñ loolu buñ ko waxee la nga xam ne daa xaraam moom taxul ñuy wax la nga xam ne dañ koo sib taxul ñuy wax waaye jullit da war a góorgóorlu la la amaloon njëriñ ñëpp nga bàyyi ko bépp jullit boo xam ne yàlla dëppale na ko ci mu daal di jëfe lii da gis ne yiwu rëy dana ko am ci dund àddunaam waaye bis bu dajeeg boroomam dana fa amit ngërëm gu rëy bu bawoo ci boromam subhanahu wa taala ca sunu boroom mooy ki nga xam ne moom moo ñu sant ci ni nañuy sàmm la nga xam ne mooy suñuy làmmiñ yi ca mbokk doomu aadama ak mbaaxam ma ngay tàmbalee ca làmmiñam yonent bi sallallahu alayhi wa nee na kenn ci yéen du mën a jub lu dul xolam dafa jub waaye kenn ci yenn xolam du mën a jub lu dul làmmiñam dafay jub waaye bu ñu xoolee làmmiñ yooyu sunu boroom subhaanahu wa taala nee na li ëpp ci li nit ñi di waxtaane day benn yiw nekku ca laa xayra fi kasirin min najwaahum xanaa lu dul ña nga xam ne bañ dajee di waxtaan dañoo digle nu ñuy def ba dimbali keneen nu ñuy def ba digle ak njekk nu ñuy def ba defere diggante bu yàqu sunu borom mu ne ki def lii day fekk bi nga koy def yaa ngi jublu ngërëmal yàlla ci loolu pay gu màgg mi ngi lay xaar loolu ñu bàyyi ci xel bu baax aaya boo xam ne daf ñuy digal mooy def lu baax jëm ci ñun waaye def lu baax jëm ci suñuy mbokk jullit lii bu ko jullit déggee war na doon kon sàmmaat ay waxam bu baax a baax moytu lépp loo xam ne wax la ju jëm di lor mbokk jullitam loolee ay san la loolee ay jëw la loolee ay saaga la walla lu lu mën a doon sunu borom yàlla xamal ñu ni amul kenn ci yéen lu dul boole naa koog ñaari malaaka yoo xam ne lépp loo xam ne yaa ngi koy wax malaaka yooyu benn baat du leen ca rëcc benn xarfu du leen ca rëcc lépp ñu ngi koy bind di la ko dencal loolu moo tax ba yow julit xamal ne bépp wax boo wax wala jëf boo jëf résultat ba danga ko mas a gis ci àdduna wala allaaxira bu la ko yàlla jéggalul muy la bon da nga ko gis amma bu dee aw yiwa it da nga gis yiwam àdduna da nga gis yiwam ca la nga xamee ni ni moom mooy allaaxira mbokk ñu góorgóorlu sàmmaat wax yi yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ne nee na benn waay de dana wax benn kàddu kàddu googu yàlla gërëm ko ci yëkkatil ko ci ay daraja ba faw waaye benn waaye dana wax benn kaddu kaddu googu yàlla mere ko ci daal di ko ciy tàbbal sawara xoolal benn kàddu ba dee loolu mooy mbiram ana ki nga xam ne guddeeg ba teg fu mu toll mi ngi talalali ca la yoonam nekk ak la yoonam nekkul yépp loolee di mbir boo xam ne war nañu góorlu xoolaat gis ana ñun fan lañ toll ci loolu loolu moo tax ba ab jurit dañuy góor góorgóorlu di wattu la nga xam ne mooy suñu làmmiñ làmmiñ woyu ñu jëfandikoo ko ca la nga xam ne mooy diglu lu baax ca la nga xam ne mooy teru lu bon ca la nga xam ne muy fàttaliku xamul ca la nga xam ne nii moom mooy jàng alquran di dal suñu boroom bari la nga xam ne zikrullah ca xam ne kàddu boo ci def benn njëriñ bu rëy la boo xam ne dana la jëriñ adduna avant mu lay jëriñ allaxira amma boyal suñu làmmiñ yi lu ñu neex rek wax kii di Muaz ibn Jabal radiallahu anhu nee na yonente bi salallahu alayhi wa sallam ama ndax ñun li ñuy wax yàlla danañu ko jàppee mu ne ko Muaz ayow day yàlla na la say yaay ñàkk ci ni arab daan waxe xanaa xamoo ne ñi dem sawara seen kanam la ñuy dëpp ci suuf seeni tànk féete kaw xam nga lan moo ko waral mooy wax ji nga xam ne dañ ko doon wax lii mbokku kaddu la goo xam ne dafa war a tiitloo ku nekk ci ñun mu daal bi góor góorlu xool ay waxam waaye mbokk gannaaw wax yooyu ñu contrôler la nga xam ne mooy suñuy jëf sàmm suñuy bët ana bët yooyu lan lan ciy nekk di ko seetaan tey jii da ngay gis ne bari na ci doomu aadama yi sunu borom yàlla subhanahu wa taala lim ñi nattoo mooy la ñuy seetaan ca télévision ya di ko seetaan ca journaux ya di ko seetaan ci mbedd yi mbir la yoo xam ne quatre-vingt-dix pour cent nekkul loo xam ne lu yàlla subhanahu wa taala gërëm la moo gaa yi jëf jooju xamal ne wallahi bépp xool boo xam ne xool nga ko ci matériel boobu la yàlla may muy bët gannaaw ba mu ko xañee ay millions ci ay jaamam ñoo xam ne mosuñoo gis wala ñoo xam ne daa leen gis gisatuñu yow nga jël xéewalu yàlla googu di ko xool di ko ci loo xam ne yàlla gërëmu ko fokk la nga xam ne muy résultat loolu danga dana mas dellu ci yow imma ci àdduna wala imma ci àllaaxira loolu la wax ci nopp ya la nga xam ne ni moo tasaaroo suñu jamono yi tey te la nga xam ne ay maye la yu ay caaxaankat yu teggiwul dara ñoo xam ne buñ doon dund ci dëkkub lislaam bu nit ñi xam seen diine fu ñu génn dañ leen a war a xëpp suuf sànni leen ni dal tey da gis ñoom la ni ñi yëkkati ci kaw dañ naan da ñoom ñooy lom ñuy wax ci ay caaxaan loolee ñuy wax ci ay maye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alkaange ñeel na waa ji toog ay fen ngir nit ñi di rey yonent bi alayhi salaam mu ne alkaange ñeel na kooku fa waylun waaye yow mi bàyyi say soxla ne xam-xamaaral di ko seetaan ana yow lan mooy sa mbir ña nga xamee ni sunu borom yàlla xam na ay millions ci ay jaamam ak dégg yow mu wërsëgal la dégg googu nopp yooyu la nga koy alimenté guddeeg bëccëg mooy la nga xamee ni mooy musique bu bon bi la nga koy alimenté guddeeg bëccëg mooy ay waxi caaxaan yoo xam ne teguwul fenn ngal la waaye xam leen ne sunu borom nee na li nga xam ne mooy seen bët yi li nga xam ne mooy seen nopp yi li nga xam ne mooy seen xol yi lii lépp su ngeen ñëwee dinaa leen ko laat yowmal qiyaama ca kan mooy laaj mooy ki nga xam ne dara ump ko ci kaw asamaan yi dara ump ko ca la nga xam ne mooy kaw suuf ay yow mbokk julit mu ñu delloo ci bi yàlla bi sunu borom mi ngi wax ci aayu yu bari ne jullit day mooy won gannaaw lépp loo xam ne njëriñ nekku ca mooy wallazina hum anil lahwi muridun sunu borom nee na jullit ñi texe dëgg mooy ñooñu la jiitu ca loolu mooy bokkaale ak borom bi la ca tegu mooy bidaaya la ca tegu mooy la nga xam ne mooy bakkaar yu mag ya waaye it ak lépp lu njëriñ nekkul loolee ci ay wax la wala loolee dafa nekk ci loo xam ne nii ay ay ay jëf la bokk doomu aadama bi war nay xool fu mu toll ci bépp temps bépp heure bu muy dund bépp minute mu ne waa man fii lan moo fii sama warugar lan moo fi sama warugar lépp loo xam nga nekk ca nga xalaat sa bopp waaye lii ndax man lu ma itteel la ndax amal na ma njëriñ sama diine ak sama adduna nga la waaye loolu bu amul jógal dem ci leneen te loolu xamal ni bokk na ci lu la yombalal tabbi aljanna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog naa sahaaba yi ba mujj mu ne day léegi mu yegg si benn nit ci nit waa aljanna kookee ba mu yegg see di abdullah ibnu salaam nekkoon te borom xam yi yahudiya gannaaw ba tuub dugg ci lislaam ba mu ba ndaje ma tase benn waay daal di koy woo daal di ñëw na ko waa abdullah yow loo gën a yaakaar ci say jëf ndax man day dégg naa yonent bi seede la nangam ci nangam mu ne ah su may jëf day li ngeen di def rek laay jëf xam naa daal yàlla may na ma man du ma iñaane benn julit du ma noonoog benn julit waaye it yàlla may na ma lépp lu ma sama yoon nekkul banaa lu sama yoon nekkul moom bu ma ci dugg du ma ko wax du ma ko jëfe ñu ne ko loolu moo la yeggale fi nga yegg loolee kon mbokk ku nekk ci ñun war naa bàyyi xel loolu xool la ko yàlla jagleel la ko yàlla faratal mu yem ca bokk na lu yàq doomu aadama yi tey mooy di xool ñi yàlla xëpp alal kër yu taaru yi oto yu taaru yi nga bëgg a dem ba mel ni ñoom et pourtant xaal bi la yàlla may alhamdulillah am nga foo dëkk yaa ngi lekk yaa ngi naan yaa ngi sa njaboot waaye ittewoo la yàlla xëpp ay alal loolee tax na ñu bari loolu yàq seen adduna et moo ne day sunu borom nee na wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrata alxayaati dunya bul nekk mukk di xool sa kanam te la nga xamee ni nii dañ leen a nattoo dundug adduna gi te loolu mbokk mooy yéeféer yi nga xam ne tey suñu doom ñu ngi leen di gis à travers télévision yi di xool la ñu nekk ci bànneex di xool la nekk ci luxe tax na ba la ëpp ci ñoom loole da ngay gis ne itteel na leen ca la nga xam ne waroon nañ koo taxawee ay yow mbokk julit na nga xam ne bokk na loo xam ne farata la ci yow loo war a ittewoo gannaaw ba nga ittewoo sa mooy njaboot gi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo la booleeg ñoom njaboot googu yàlla dala cee teg sàmm ca yowmal qiyaama yàlla dana la leen laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax kàddu gu matale nee na yéen ñépp ay sàmm ngeen ku nekk yowmal qiyaama daañ ko laaj lim doon sàmm doonte ne détaillé na ko ci président de la république ñëw ci ki nga xam ne moo jiite kër gi ñëw ci soxna nga xam ne moom lay borom këram di bàyyi ci kër gi ba ñëw ca la nga xam ne ñooy ñi ñuy liggéeyloo gardien yàlla wala employé yàlla ku nekk yonent bi ne xam leen ne ay sàmm ngeen te daan ñu laaj li ngeen doon sàmm kon bala ngaa nekk di ittewoo leneen ngal la waay ittewool sa njaboot xoolal njaboot googu ndax ñi ngi ci lu neex yàlla jalla wa ala ñi ngi ci santal yàlla ñaan yàlla saxal ko gis nga ne ah ma sàmm day nekku ci góor-góorlul loo man fexe ba ma sàmm moomu nga delloo ko ci ngërëmal yàlla a ah, ñu gis ne kat Fatima moom bokku ci góor-góorlu loo mën a man fexe ba xaatim boobu nga delloo ko ci la ngërëmal yàlla ci ñu taxawal seen julli di muur la nga xam na mooy seen awra doon ay jaamu yàlla yu baax lii day moo gën a nekk ci yow farata añ bi ak reer bi ak ndékki li nga leen gàddul nga gàddul leen teg leen ala siraatul mustaqim loolu gën a nekk farata ndax moo tax sunu borom ne yaa ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara na ngeen fexe ba fegal seen bopp fegal seen njaboot li nga xam ne nii moom mooy sawara donte ne ne mbokk ittewoo la nga xamee ne nii mooy sa waru gar firiwul ne da ngay war a dugg ci mbiru kenn comme nu tubaab yi di wax naan chaque pour soi Dieu pour tous loolee seeni wax la amaa ñun jullit sunu borom yàlla def ñoo jàngal aaya yu bari ci ne doomu aadama yi perte nañu xanaa lu dul ñi nga xam ne dañoo gëm gi def lu baax waaye di dénkante dëgg di dénkante ak muñ loolee mooy lay musal ca pertaange ga ca it Abu Bakarin Saddiq demoon na ba yëg ci loolu ci sahabatul kiram ci ne ñu jàpp ne ku nekk na toppatoo sa bopp mu daal di yëg ca kaw minbaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ne ay yéen nit ñi am na benn aaya day ni ngeen ko dégge day du noonu aaya bi yàlla subhanahu wa taala di wax ne na ngeen ittewoo seen bopp képp koo xam ne daa dëng du leen lor ci dara maa ngi leen di seedeel ne dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne nit ñi day buñ gisee ak tooñ tooñ googu jóguñu taxaw pour dindi ko bu yàlla dee indi ab nattoom ci ñoom ñépp la ko yàlla di boole looloo tax ba nga la way yow julit góor-góorlul nga fexe ba doon kuy ragal yàlla subhanahu wa taala ci sa bopp ragalal yàlla ci sa njaboot waaye ragalal yàlla ci la nga xam ne mooy seen mbokk jullit ñi ngi dund dund jamono bu jafe jamono boo xam ne sax ci la yàlla santaane doon na loo xam ne lu jafe la jaamu yàlla googu taxoon yàlla indi ñu ci kaw suuf nga xam ne daa war a ëmb suñuy xol ëmb suñuy làmmiñ waaye ëmb suñuy cër loolee da ngay gis dana mas jafe waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam béggaloon na nee na al ibadatu fi lxarj ka hijratin ilayya rawahu muslim képp koo xam ne yaa ngi jaamu yàlla ci jamono ju jafe ci jamono ju jaxasoo comme suñu jamono ji ñi dëgg tumuranke ñi diina tumuranke ca ña nga xam ne dañoo bëgg a mooy ci sunna na doon góor lañu aw ay jigéen lañu yonent bi alayhi salaam nee na ñooñu day mi ngi mel ne ñi gàddaayoon fekk si ma madina nga xam ne ñoo ëpp cër ci xeetu lislaam waaye yonent bi daanañu bégal nee na day inna min waraikum ayaaman alsabru fihinna mislu alqabdi ala aljamra lilaamili fihinna mislu ajri xamsina rajulan minkum rawahu tirmidi wa sahahahu albani yonent bi alayhi salaam mu ne ah nit ñi am na jamono bii nar a ñëw seen gannaaw yéen sahaaba yi bu ngeen fi jógee jamono joo xam ni kii muñ ca la nga xam ne mooy sama sunna dafa mel ni kiñ joxoon xalu sawara ne ko téye ko ki nga xam ne fexe na ba góorlu nag ba muñ ba jëfe sunna boobu yàlla dana ko may yoolu juróom fukki sahaaba ci yéen mbokk loolu dañuy doon loo xam ne danañu doon lu ñuy bégalaat lu ñuy sawarloo mooy diine tumuranke na lool dund diine danga am jafe-jafe lool da nga am ak say mbokk da nga am sa ak say am di jàmm heure bu ñu wootee ci shirk ba koo dana am bët bu ñu lay xoole heure bu ñu wootee seeni biddaa demoo ànd ci ak ñoom dana am bët bu ñu lay xoole bu ñu wootee seeni caaxaani ki ndaje ca demoo ànd ci ak ñoom dana am bët bu lay xoole waaye ngalla waay xoolal bët ba la yàllaa ki malaakaam di xool gannaaw ba nga defee ngërëmam dana la dalloo xel ca bëtu waa adduna bi yépp buñ daje woon mere la góor góorgóorlu delluwaat ci xéewal gi ñu yàlla may yàlla may nañu xéewal gu mag ca mooy xéewalug lislaam la nga xam ne moo ñu jëkk a war góor wala jigéen ngan la waaye nañu fexe jàng suñu diine bépp jéego boo bëgg jéego jëm ci yàlla te commencé ko jàng sa diine da ngay nax sa bopp falilahi alhamdu bu dee amoo kattan ci dem ci ah, yenn jataay ñu lay jox ay bigga ki fëy dina bindal loolee taqool ak jàkka yi ñuy jàngale di fa jàngale cërëb yàlla di fa jàngale la nga xam ne mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina yéen jigéen ñi alhamdulilah am na ay cours yu ñuy joxe fii diggante takkusaan ak timis altine bu nekk ak àjjuma bu nekk loolu mooy la la jëkk a war ak a luy ñaaw ci mbokk julit moo di ne ne yow nga fexe ba àdduna lu ne xam nga ko am nga ay diplôme fexe nga ba tabax kër yaa ngi permis yaa ngi nangam waaye sa téere borom xamoo ca dara xadiis yonent bi alayhi salaam xamoo ca ñaar xamoo ca ñett loolu mbokk dafa ruslu xam leen ne la gën ci lu doomu aadamay wax la gën ci lu doomu aadamay xam moom mooy téere borom bi waaye la gën la doomu aadamay taxawee la gën la doomu aadamay jëfee mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii yi képp ko xam ne sax na ci mbokk bis bi ñu jaar bisub jaar jaar la rek ñu ngi jëm ci sunu borom. képp koo xam ne bàyyi woon ne lépp loo xam ne ngërëmal yàlla nekku ca sax ci ngërëmal yàlla coono boo mën a am ngalawaay bis boo dajeeg sa borom bañ yëkkati sa téere jox la ko sa ndeyjoor da nga dellu ci say mbokk ak sa kontante ne leen xool leen sab téere gi nii man de xamoon naa ne dina réussir sunu borom yàlla mu ni ku mel nii day day nekk ci dund bu ñuy gërëm amma waa ji nga xam ne mi ngi topp bànneexu bakkanam sunu borom yàlla nee ne téereem ci càmmoñ la koy joxe bu ko defee lu tax kaana fi ahlihi masruura ba mu nekkee dund ci biir këram lu daan bànneexal xolam ak daan bànneexal njabootam loolu dëng la daan ittewoo su ko defee nga la waay mbokk ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala la nga xam ne moom la ko ab yonentam saxaan daan ñaan la ëppoon ci ñaani yonent bi mooy yaa muqallibal qulub sabbit qalbi ala diinik ay yàlla yaa moom xol yi yaa koy wëlbati sunu xol yal na nga ko wëlbati saxal ko ci sa diine ñu ngi ñaan yàlla yàlla yal nañu bëgg loolu mu gërëm yal nañu yàlla bañ loo lépp loo xam ne su sunu njëriñ nekku ca bañ loo ñu lu xaraam bañ loo lépp loo xam ne da koo sipp yal na yàlla rafetal suñu diine yal na yàlla soppaloo ñu la nga xam ne ni mooy imaan taalal ko la nga xam ne mooy seen biir xol yal na yàlla may ñu dund gu tedd gu mu gërëm ci adduna may ñu dund gu tedd gu mu gërëm ci alaxira yal na yàlla subhanahu wa taala rafetal suñu mucc yal na yàlla saafaral ñu suñuy jàngoro yal na yàlla fayal ñu suñu bépp bor yal na yàlla teggal ñu suñu bépp jaaxle yal na yàlla subhanahu wa taala boole suñuy xol mu musal ñu ci la nga xam ne mooy teqalikoo ak i fitna yi am ci mbokk jullit yi ci kaw suuf yal na yàlla subhanahu wa taala fay ko ci kattanam yéeféer yi nga xam ne ñoo dajaloo di leen sonal yal na yàlla dajale ay malaakam ñu delloo leen ca la nga xam ne mooy seen toroxtaanga ga yal na yàlla wàcce jàmm ci lislaam wàcce ko ci ñuy dund lislaam fu ñu mën a nekk ci kaw suuf wa axiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain